bu mag bi kawe ko itam lool ci mbooleem daara xisbu tarxiya daarul xudduus di ñaar fukk ak ñetti fani digg tabaski atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay gi ñépp di ko bàyyi xel mbooloo mi fas yéene ànd feddaliwaat seenu jaayante ci cheikh muhammadul muntaxa al mbakiyu asalaamaaleykum wa rahmatullah sang bi ñu ngi lay waat bu baax di rafetlu kàddu sëñ maxtaar yi ni ko wax rek kon tout tànk yi mën nañoo jege si su ko defee xam guñ xam mbàkke yittewoo gi nga yittewoo defar nit ak yar ni mu nekk sab liggéey moo tax ñu say dàkk sa bëgg ci njabootu sëñ Tuubaa gi ñu yàlla booleel ñu ay tout tànk ñuy jéem a def si ñoom alquran waaye di jéem a def si ñoom njàngaleem sëñ Tuubaa kon loolu lañ bëgg seere la si tuuti rek su ko defee ñu doon di jàng discours bi ci arab sëñ Mbàkke itam wax ko ci wolof waa kay kon noonu mooy liggéey bi kon tu tànki mën nañoo jege si. jaayante gi nga xam ne moom la Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos jaayanteeg Serigne Touba. te tey ni ñëw di ko firndeel ak a yeesal ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi fi nekkal Serigne bi Mbàkke yàlla na nga fi yàgg te wér jaayante googu noo ngi ko royee ci jaayante gi nga xam ne moom la sahaaba yi jaayante woon ak rasulullahi alayhi wa sallam ci jox ko seeni alal ak seeni bakkan mu len di digal di leen tere ni ko alquran leerale يقال jullit ñi sunu boroom jënd na seeni bakkan ak seeni alal sim warlu leen ajana waaye ci sartum nag ñuy dem di xeexi si yoonu yàlla xeex boo xam ne léegi-léeg am ni ñàkk seeni bakkan ñoom itam mën nañoo jël seeni bakkan yu noonu waaye pay ga moo doon ajana loolu nag muy ab diggu dëggu goo xam ne sax na si tawreet injiil ak jaayante googu itam minitu sa xeet dalee naa jural ngërëmal yàlla ndax sunu boroom moo ko firndeel wax ne لقد رضي الله عن المؤمنين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ومغانم ñoo doon jaayante gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca ron garab ga te mooy ba ñuy dem di fatu Makka ndax booba xam na la nekk ci seeni xol ci dëggu ak bëgg jofe digalu sunu boroom akub yonenteem mu wàccee ak dal ci ñoom ba ñu nangoo jofe digalu yonente bi te delluwaat fa ñu nekkoon ndax at moomu fatxu Makka mënul woon a am waaye fa la leen dig na leen léegi rek ngeen am ak fathu bu jege te loolu ñi ñu ko am ci dawen sa mu dolli ca ne yemoo leen rek si am ak fathu waaye di am amu màng mu rëy bi sooy topp muy lu mel ni ubbi gu ñu ubbi yeneen ni gox yu toppaat si fathu Makka yépp yàlla nag ku la te ku xarañ la yàlla it dig ne leen am màng mu bëree bëri tani mu leen gatandoo ci ay ngërëm noonu la leen fegelee itam pexe yi nga xam ne seeni noonu doon nañu ko fexe jëm seeni kaw loolu nag maa ko def ngir mu doon kéemaan ci keneen koo xam ne ñëwaat na ngir sonnal yàlla mu xam ne ndimbalal yàlla mu ngi fi jege na ci képp koo xam ne dëggal yàlla itam yamut si ndax moo leen gindi teg leen si yoonu ñubbi ak yeneen yu ñu mën lul woon seeni bopp te mu doon lu yowm yàlla ndax yàlla peeg na lu kenn xamul te lépp la mën ginnaaw aaya alquraan ni nga xam ne yëkkati nañ ko saa borom di jileeral jaayante gi sahaaba yi defoon seen diggantek rasulullahi ba mu jural leen lu mu leen jural waaye ngërëmal yàlla lu muy neex neex nit ku koo am talay taayu ka xam-xam niki ko suñ kilifa ku tedd kii di cheikh muhammadul muntaka di fàttale ci jamono ju nekk moom mi nga xam ne daa yàgg a nekk jant mbooloo mi lu jiitu ak nekkam jant ànd na bu sëpp moo tax ñun ndawi Hizbut Tarqiya Daaru Xuduus jël xam-xam def ko mu ci nit te di ko fàttale suñu mas ci xasida gi nga xam ne sëriñ bi bind na ko di ko leeral doxin wi kii saako xam-xam wala rambu kun kaatiman liddurri wal busaatanal qasdan wadaa 3, 4 juillet 2021, des dates pour l'histoire, des dates pour une histoire, une rencontre de purification, l'extase de foi, une rencontre de pure action auprès du plus pur d'entre nous, la rencontre de la béatitude, celle de la félicité parfaite, c'est la rencontre.